ñoo ngi leen di joxe xikma bi fii ci institut Hikmatul Yawmi pour l'éducation et l'enseignement islamique centre Cheikh Mouhamadou Mourtada Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 wala 77 712 44 71 ci ñu bëgg bind seeni doom wala ñu bëgg ay leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo jógee ci Serigne Touba. cheikh Muhammadul Muntaxa xafisahullahu waraa yàlla na ko suñu borom sàmm te aar ko te may ko fan gudd lool ak wér ndax kilifa gu mat kilifa la te kilifa gu dal xel la te kilifa gu am yërmande la ak yéene ci njabootam xikma bi nag mi ngi ko jëme woon ci ak taalibe te ku ci ràññeeku la royukaay la ci itam bu mag a mag moom ak cheikh Muhammadul Muntaxa ab murid sadiq la cheikh Muhammadul Muntaxa dafa waxoon ne man de sama kilifa dama koy bàyyee sama bopp ba kook boppam dama koy bàyyee ak sama bopp ba noppi bàyyi ko bàyyi boppam loolu nag wax ju rëy rëy la te lu jafe-jafe la ci jamono ji ñu toll bu defee man damay wax ne ku sa bopp jaaxal ba nga joxe ko nag dama xamul lu saw yoon ci bopp jàmbur waxuma la ak bopp ka nga jox sa bopp ah, Cheikh al Xadim sunu yaakaar de ba muy jàngale melo yu murid sadiq lii Cheikh Muntaxa wax mooy ñaaree da ko àndaale dafa wax ne sifaatu saadiqil muridi bixtisaar arbaatun nadamtuha xawfa ixtiraar as-sidqu fi mahabbati cheikhi abad suma imtisaalu amri haysu warat wa tarku li ictiraadi mutlaqan walaw bi baatirin alayhi fi ma qad rawa maahu salabul ixtiyaari li wasni dannihi bila inkaari fa kullu man jamaa si sifaat min al muridina fa yudriku siqaat meloy murid saadiq kat ñeenti la dama ko woy na ngir bañ ngeen woru moo tax ma leen koy leeral daal bëgg sa sëriñ te muy dëgg ci ñaareel ba bu la digalee nga daal di jëf fa saasa te bañ koo waaj ñetteel ba nga bañ koo jox ndigal mooy nga bañ koo gaaral dara mooy nga bokk boppam kon ñeenteel ba moom mooy eh, nga bàyyi ko sa bopp bul def bu la digalee nga tànnaat ca ndigal la wala nga ne da koo xamewut ni waaye nii moo gën kon loolu mooy ñaar yu mujjee mooy bokk ak boppam bokk sa bopp mooy li Cheikh Mouhamadou Mountakha wax Mm, murit saadix yu njëkk ya nga xam ne ñoo njëkk a sëriñ bi de noonu lañ doon doxee sëriñ Dame Abdourahmane loo nga xam ne kenn la ca bi sëriñ bi dem ci géej gi ci baar yi ba muy laaj xalaat ba agsi ca moom ba mu ko laajee luy xalaatam ci mbir mi sëñ Dame dane ko man kat ku naan yàlla nee na duma ko joxub xalaat defal li la yàlla digal te digal ma loolu sabab na bi sëriñ Tuubaa demee ci géej gi am na leetar bu mu ko doon bind waaye firndeel na ko ci ne ab murid saadiq nga ayyuhal muridu saadiq allazi fanaa fii ka fanaa i fillah yow murid saadiq bi nga xam ne ni kat jeex nga ci man ni ma jeexee ci yàlla kon képp ku bëgg jëriñu ci sëb sëriñ noonu ngay mel moo tax sëriñ Tuubaa dañu ko jàngal ci nax ju ne na nga mel ni ab néew ci kanam sëb sëriñ maanaam na nga mel ni ab néew ab néew ko du wax ña koy sang tooyal leen fii wala sottil leen ma fii wala walbati leen ma déedéet moo tax mu ne wakun la da cheikhi ka maytin wadiha bayna yaday xaasilihi tantafia moo tax sëñ ba Jaxate ci woyam yu day wax ne fexee la mel ni dërëm ngir ab dërëm ku noppal sa bopp te noppal waaja yor sa mbirit doo gis dërëm naa boroomam tee nga jënde ma lëf boo koy fasit du ko naa ay waaji mbaa du ma rot kon képp ku bëgg a jariñu ci Sëriñ tubaa noonu ngay mel waaye jamono ji nag sëriñ bi daa waroon a wax nangam ak sëriñ bi warutoon a wax nangam wala waru ko woon a waxee nii ak sëriñ bi daa waroon def nangam ak sëriñ bi daa warutoon def nangam wala wala waru ko woon a defee nii lu siiw a siiw la te képp koo xam ne yaa ngi doxee noonu kat ci sa kilifa baatub taalibe moo nekk ci yow waaye jëfi taalibe moom nekkul ci yow te ak taalibe kat lu ñuy jëf la waaye du lu ñuy wax am na ku ñëw ci sëriñ Tuubaa ne ko damaa bëgg a jébbalu mu ne ko ana loo ci jublu mu ne ko bëgg loo ma digal ma di ko def loo ma tere ma di ko bàyyi mu ne ko wool fere yi fi ne ba mu wooyee ña fa ne ñëpp sëriñ mi ne ko waxal la nga waxaatal mu ne ko man de mbàkke damaa bëgg a jébbalu sëriñ mi ne ko ana loo jublu mu ne ko bëgg loo ma digal ma di ko def loo ma tere ma di ko baax sëriñ ma ne ko déglul jébbalu ko ay wax la rek boo ko waxee dégg nanu ko boo ko jëfee jàpp nanu ko kon lu ñuy jëfee la waaye du lu ñuy boo ko waxee te jëfee ko itam amul jëriñ kon gën a fonkaat sunu taale bi gën a